koy def tey mbër amandoo ñetti avance bu dara wër kër mbër mbër bu ma naa am ñetti avance man nii te wat ay classe loolu am na ñuy classe ñetti avance ñu bëreen loo def ko grande champion donc ñu nit ñi muy gañee pain ni muy toje bopp dina xam da nga koy bàyyi moom mu koy def loolu nit kenn ci mbër yi effectivement ko léegi bàll Boy Niang war a bëri eh, ak Tapha Tine tey kii tey yëpp damay yendoo woo Thialis tey aviser ko ci la xew parce euh, dafa war a teg Boy Niang au mois de juillet même su doon dëgg déwén la man su ma neexee mën naa bëriloo signaloo Boy Niang pour déwén jéeg loolu du problème ndax mu nag dafa nekk euh, milieu boo xam ni ay waxante ji dafa ak yàq ci xel dafa daaw. d'ailleurs lu ne

li nu ministre bi waxoon comme quoi que retraite bi dinañ ko seetaan ragal naa ni dinañ ko seetaan mën naa comme espoir donc loolu rek la ñaari xale yi ay champion yu ay mbëru askan wi lañu mbëru Sénégal lañu ñëpp leen bëgg yàlla dogal na ni danañu suñu bëree seen ñaari combat yi ñu am au mois de juillet début de saison l'année prochaine c'est-à-dire saison bi su ay mois de janvier février jamono yooyu dañu jàpp dab avant boobu dañu jàpp dab bi nga xam ne ci lañuy liggéey te fii ñu toll ba tey euh, ba bàyyiwul sax joxaat leen avance pour ñetteelu ko pour financer donc bëgg mu leer mu leer na bëgg dara lu ñu def dafa transparent keneen ku leen bëgg ne leen jël pour ñetteelu combat mais ñun bàyyiwul yëpp xel loolu ndax euh, dañu nekk rek ci milieu làmb am suñu programme di ko déroulé yàlla nu yàlla suturaal dimbali nu ñun ñëpp ñu am wér gu yaram fan wu dugg ba ñun ñëpp ñu mën a fekkee loolu lépp def ko nag ngir Sénégal aussi pour ñu pour bégal waa Sénégal pour euh, jox loisir waa Sénégal parce que réew moo gis dafa soxla loisir soxlawul ay kulo yi ay téesal yi yooyu yow Sénégal avancé ñëpp jëm ci kanam. jërëjëf euh, Père Gaston loolu leer na. loolu mooy gentleman agreement balaa may dugg ci dara dama ci waxtaan ak ñi ma ci war a waxtaan Pape Thialis dafa nekk sous contrat ak ki nga xam ne moo di Boy Niang numéro 2 waaye jox cër Gaston ak cër bi ko Gaston dox moo tax moom tamit mu ne loolu du dara ci la daal di ko ne mën nga doxal grand amul benn problème ki nga xam ne aussi moo di Bombardier par gentillesse wala par courtoisie moo tax Gaston informé ko loolu yi tamit yëfu gentleman la parce que mënoon na toog rek dégg ni jox nañu Balla Gaye beneen avance mu mel ni que Gas dafa yor programme di ko dérouler xëccoowul leen waaye bàyyiwul fi kenn pour muy leen lu waay bëgg yi tamit bu la neexee nga dox ko parce que nag at du leen fi xaar doole ji du leen fi xaar business ngeen di def liggéey ngeen di def seen liggéey nag lépp lu nga xam ne da koy jëmale kanam